di leen nuyu ci kàddu yu gën a sell muy asalaamualeykum wa rahmatullah bokki ñu dellusi rekk niñ ko baaxoo defee ci àjjuma bu jot ci waxtu wi sunu taxawaay di dellu ci waxi sunu boroom ji mu wax ni wa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin nga fàttali ndax fàttali danay jariñ woy gëm ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni addiinu an diine daal laay biirante la sëriñ bi di wax ni su man nasiha li ahlil baari xayrun min al jihaadi fil kufaar dem ci ñi nga xam ne nii suñ boroom dogal na ñu am yéene baax nga laay biranteeg ñoom moo gën nga jël ngànnaay dem jihaad ak yéefar yi kon ñu dellusi rek mel ni ki tey dañuy indi ay leeral rekk ci ngëneeli koor ndaxti koor dafa bari lool ay ngëneel te bokk yi fi jiite jiitu ci waxtaan yi jiitu wax waxtaan nañ ci àtte yi ak sàrt yeeg lu ni mel xam naa dañuy def rekk dañ ci dañ koy def rekk ak ubbee waaye euh, duñ ci sori ma nag bu naa sawm mooy alkafu an bàyyi dara loo mën a bàyyi rek loola danga caa def imsaak bàyyi ci matale waaye bu dee ci lislaam dañ ci jublu ne bàyyi tere yi bàyyi tere suñ borom yi te bàyyi tere suñ boroom yi nag wutul koor ak lu dul koor sa diirub dund suñ borom de la tere li mu la tere bu fekkee ne nag tudd nañ ci koor weeru koor wi muy kooru farata bi lala sa boroom tere woon daa am lu mu ciy dolli lu mu ci yokk te mu ngi koy yokk ci weer wi muy bàyyi lekk ak naan ci bëccëg bi ak lépp loo xam ne nii mën na laa dogloo loolu dafa ànd ak ay sart ñooy sart yu mel ni ki sart yi koy wëral sart yi tax mu war sart yi yi nga xam ne ni dafa boole dafa boole mu di ko wëral ak mu war ci ki nga xam ne nii mooy jaam mu am ay ponk am ay sunna am yuñ ci sopp am loo xam ne nii dañ koo sib amit loo xam ne nii dañ koo araamal dañ ko araamal ci weeru koor yii yépp mbokk yi dikk nañ ci def ci ay leeral yu am solo moo tax ñu fas yéene indi it leeral ci ngëne yi koor ak jaamu yàlla la gu mag a mag goo xam ne nii bokk na ci xeetu jaamu yàlla yi gën a kawe bokk na ci itam li lay gën a jegeel sa boroom danay sellal bakkanu doomu aadama bi danay yar ruux doomu aadama waaye itam daara joo xam ne nii mënees na taa jële ak ragal yàlla kërum njub itam mënees na ko ko tudde ci koo xam ne nii dugg na ci ci yéene gu goo xam ne nii yéene gu gu wër lay doon yéene gu dëggu lay doon saa yoo ci duggee ci yéene gu dëggu boo ciy génn danga ca génnewaale lijaasa boo xam ne nii lijaasa lijaasa njub lay doon lijaas ak ragal yàlla lay doon dafay mel ni rek ab lël boo xam ne dugg nga ko lu diiru weer nga am loo ciy moytu am loo ciy def am looy jombale sa bopp ba mu jeex kon bu jeexee rek war nga yooyu nga xam ne nii moom nga doon def ci weer wi yépp nga mën koo wéyal ndax am nga weeru lëmm nekk ci di ci tàggatu sa bopp kon lépp loo xam ne nii jaam bi bëgg na koo bàyyi te muy loo xam ne ni baaxul koor gi bàyyi koor gi ñëw mu bàyyi ko bu ci am dogu bu koor gi weesoo loola dana koo bàyyi képp koo xam ne ni itam nekk nga ci weeru koor te jàpp ne am na jikko joo xam ne neexu la woon walla neexu sa boroom nga bëgg koo bàyyi nga bàyyi ko ci weer wi yépp bu weer wi weesoo war nga koo bàyyi boo ko defee ay koor ay koori koor insha allah balaa yàgg jikko yu baree baree bari yoo xam ne neexu la wala suñ borom tere na la ko dana dañ ci yow moo tax koor ngëneel yi bari lool ñu mën caa tudd tuub gu sell koor danay dimbale jaam bi ci tuubam mu tuub tuub gu sell ndax dinga gis koor bu jub seen ñépp ci bari ci seenu colak seenu dox doxi nag lan daan def ak yooyu yépp dañ koy soppi ndax ne ñu ngi ci weeru koor kon dana dimbale nit ki mu wéyal mu mën a wéyal jikko jooju mbaam tuubam googu dellu googu mu dellu bor ci boroom dana ko dana ko ci dimbale bu lool ndax suñ boroom boo gisee bokk na ci li tax mu defal ñu koor mooy bëgg ñoo jéggal bëgg ñoo jéggal toujours dañuy wutal ab lay boo xam ne nii danañ ca mën a euh, jéggal wallaahu yuridu an yatuuba aleykum yàlla moom loolu rekk la bëgg jéggal jaam te wax na ne ana tawaabu rahim man mii maay ki jéggal jaam bi maa ko yërma yërëm bokk na ci itam ci tuub gi nga xam ne nii moom la ci nit ki def saa yu saa yu ci dëggoo te gëm nag toftale ca tuubam googa jëf ju baax suñ boroom day da koy jéggal bàkkaar yi ba pare jël safaan yam daan def te ñu bindaloon ko ko ay bàkkaar suñ boroom jël yooya defal ko ko ay yiw soppil ko ko ay yiw bokk na ci ngëneeli koor danay tax jaam bi dundal dinay dimbale jaam bi ci dundal waxtu nga gis boo xëyee ba ngoon jot ci lu baax rekk ngay bëgg di ne mbaa foo ko dégg jëm koo xeeñtu bi nga xam ne ni loolu dalay may nga mën a dundal sa waxtu ni nga xam ne nii noonu noonu la war dundal waxtu dafa am solo lool ndax nit ki amul lu ko ëpp mbaa lu ko gën a seer sëriñ bi di wax ne faalam bi anna waqta saxsin min aazi asiyaihi fastaghlanhu bil aaz na nga xam ne waxtu nit ki dey bokk na ci li gën a am valeur ci moom gën a am solo ci moom kon na nga fexe ba waxtu woowu nga soxlaal ko ci lu am njariñ bu ko sànk mukk ndax dara mënu koo weccee ndax xamoo tey yaa ngi tey waaye xamoo ëllëg muy wax ne lam tadri hal tabqa ila gadin taqdiru zaakal yawmi fii faajila xamoo xamoo ndax suba dana la fekk xamoo ndax ëllëg dana la fekkam déet ndax xamoo ndax lii nga mën tey suba danga ko mën wala de kon na nga góor góorgóorlu te dundal waxtu woowu ci séddale ko nag lenn lu ci ne lan ca war a def ci lu baax wutal ko tëraleen bu bu jub dun te dundal ko koor danay dimbale jaam bi it ci tuub ci ci euh, maanaam muñ te xam ngeen ne ku muñ rekk suñ boroom defal la aw yiw innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xayri xisaab bi xayri xisaab suñ boroom wax na ni dana danay fay ñi nga xam ne nii dañu ay muñaakon lañu pay goo xam ne nii du ko du ko wutal ab lim da koy sottil rek day jóor rekk kon lu baax la ci luy dimbale nit ki ci ak muñ moo tax sëriñ bi di tuddeek muñ ak daarul waasia kër gu yaatu gi ndax muñ kërug muñ loo ci dugal mu xaj am mbir lu mu diis diis lu mu jafe-jafe lu mu naqari naqari boo ko dugalee boo ko dugalee ci kërug muñ mu xaj kon mooy kër gi nga xam ne nii euh, kër gu yaatu la bokk na ci euh, ngëneel yi itam danay dax nit ki di def ci yoonu yàlla di joxe lu mel ni sarax ak lu mel noonu ndax sarax sëriñ bi wax na ni benn sarax rekk boo sarxee danay euh, danay mën a fekk juróom ñaar fukki deewin wu ñaaw te it day fay merum sunu borom subhaanahu wa taala te day euh, far ñaaw teefi nii nga xam ne ni noonu la sawara di faye euh, noonu la ndox di faye li nga xam ne mooy sawara te itam yowmal qiyaam képp koo xam ne nii daa nga sarxe ci sa keruk sarax ngay toog ba nu àttee ba noppi kon jox génne joxe sarax dafa am solo lool te weeru koor da ciy dimbale jaam bi sëriñ bi mos naa wax mos naa woo sëriñ Mouhamadou Mamoun ne ko Mouhamadou Mamoun ndax bëgg ngaa bëgg nga barke mu ne ko waaw Mbàkke mu ne ko del togg di joxe naat ko ndax bëgg ngaa gudd fan mu ne ko waaw mbàkke mu ne ko del togg di joxe naat ko ndax bëgg nga gudd bëgg ngaa dugg dem àjjana mu ne ko waaw waaw mbàkke mu ne del togg di joxe kon joxe dafa am solo lool waaye koor da ci gën a da ci gën a ñaax nit ñi ñu di ko def bokk na ca itam ngëneel ya muy alxuraanu karim xam ngeen ku ne koor ne alxuraanu karim waaye ku ne alxuraanu karim it ne laylatul qadr alxuraanu karim mooy téere bi nga xam ne nii mooy téere bi gën ci téere yi sunu borom wàcce ci kaw suuf waaye mu tànnal ko yonent muy yonent bi gën ci yonent yi ci kaw suuf ni ki noonu it ginnaaw ba mu ko tànnalee yonent bi gën ci yonent yi da ko boole xeet wi nga xam ne nii moo gën ci xeet yi muy xeet Seydina Muhammad ngir mu indil leen téere boobu muy seenu mbég waaye ginnaaw ban ko joxee xeet wi ñu tànnal ko weer weeru gën ci weer yi muy weeru koor ñu wàcce ko ci waaye itam ci guddi gi gën ci guddi yi muy guddi laylatul qadr kon gis ngeen tànneef ci biir ay tànneef laylatul qadr sunu borom wax na ne ci weer wi nga xam ne nii moom la wàcce alxuraan sahru sahru ramadan allazi unzila fi l quran weeru koor wi nga xam ni ci lan wàcce alquran te kenn ku ne xam ne laylatu qadr ci weer wi la ne laylatul qadr suñ boroom dañu ko xamal ci alquran di wax ni inna anzalnaahu fi laylatul qadr wa adraka ma laylatul qadr laylatul qadr xayrun min alfi sahrin tanazzalul malaaikatu wa ruux fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya hatta matla'il di wax ne alxuraan day di wax ne alxuraan day ñu ngi ko wàcce ci guddi googu loolu la ñuy xamal muy guddi laylatul qadr di ñu xamal nag ne lan mooy laylatul qadr laylatul qadr mooy guddi gi nga xam ne nii moo gën junniy guddi junniy weer yoo xam ne jaam bi jaamu na ko yàlla alxuraan ci lañ ko wàcce waaye bu ne ci lañ ko wàcce wàcce wuñ ko lépp lépp ci yonent bi benn yoon daa am fu ko sunu boroom wàcce teg ko fa mooy ci sama dunya asamaan si gën a jege bu àtteñ amee mu yónni jibril mu indi ci lu nu àttee xew-xew boobee mbaa loo xam ne lislaam war na cee àddu sunu boroom yónni jibril mu indi ko yonent mu indil ko yonent bi salaa salaam ñu xam ne kat lii la wax ci lii noonu la alxuraan di ñëwee ci yonent bi salaa salaam di jaar ci loxo jibril ba ñaar fukki at ak ñett mat ci la alxuraan wàcc ba mat sëkk ci loxoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ne weer woowu mbaa guddi googu suñ boroom da ciy defal xéewal ñi nga xam ne mooy xeetu naa muhammad ndax naa muhammad sallallahu alayhi wa sallam xeetam suñ boroom da ko tànn te bëggal leen aw yiw yeneen bi salaa ba mu gisee lu baax te bëggal ko ki nga xam ne nii mooy ñi nga xam ne ñi ñooy ay xeetam mu ñaan sunu borom mu may leen loole sunu borom wecc tegal ko guddig laylatu xadr ne ne ne ko guddi gii de buñ ko dundalee dana am yiwu toll noonu ci koo xam ne jaamu na junniy weer te jaamu bu bu bu mat sëkk junniy weer boo ko nattee ci at danga am juróom ñett fukki at ak ñett ak ay weer ci loolu xam ngeen ni xeetu Seydina Muhammad ngir ñu dund téeméer mbaa téeméer teg dafay jafe comme ñoom seen dund foofu la ci foofu la dafa gàtt ñu jël guddi googu def ci yiw wu baree noonu kon mu jara mu jara dundal lool ci guddi googu wax nañ ni bu dee nin ko mën a xame fii ci lañuy ñuy wote budget jaam yi li suñ boroom dogal ci jaam bi lépp ci dundam da koy jox da koy joxe par at détail at moomu li mu war a am ci li mu war a ne mbaa fi mu war a bokk da koy jox malaayka yi jox leen seen kenn ku ne mu jox ko jox la la nga xam ne nii mooy sa wàll mooy sa service mu yor loolee di ko saytu bu at mi jeex kon guddi la gu màgg gu bari ay yiw niki noonu la malaayka yi wàcce ànd ak jibril ci xéewal yooyu nekk ci ndigalu seen boroom yonent bi salaa wax na ni man qaama laylatal qadri imaanan waxtisaaban gufira maa taqaddama min bi képp koo xam ne nii dundal nga guddi googu ci naafi la wàllu deme ni moom te ba nga koy def daf ci ànd ngëm ngëm gu ma sëkk te rafetal ko sellal ko nee na sa bàkkaar yi jiitu de suñ borom dala ko jéggal te loolu guddi googu deesu ko amee lu dul ci weeru koor wax ci la ko sunu boroom dëxël ci li ëpp ci fukki fan yu mujj yi lay doon ci li ëpp yonent bi wax na ni iltamisu iltamisuha fi l asri al awaaxir min ramadaan nangeen koy làmb ci fukki yu mujj yi ci weeru koor mu mel ni ki kon bu demee ba alxames ci lay war a nekk guddi guddi googu nga xam ne nii mooy guddi diggante alxames ak àjjuma muy guddi gi àjjuma gi suñ boroom wax na ne fiihaa yufarraqu kullu amrin hakim ci la sunu boroom bi xoolaat ay mbiri mbiri jaam yi ci lay atte jox jaam yi li nga xam ne nii mooy seen dogal niki noonu kon war nañu farlu góor góor gën cee bàyyi xel bu baax a baax ci xeeti jaamu yàlla yi ndax buñ sunu borom wax ni buy wax ni na ngeen na ngeen jëkkante ci aw yiw a tax mu di ko wax moo tax muy wax fastabiqu bi fasta fastabiqul xayraat na ngeen jëkkante waaye ci lu baax naka noonu alxuraan dafa tedd lool moo tax suñu borom tànnal ko tànn tànne ko tànn noonu mu ko tànne waaye tànnal ko xeet bi nga xam ne moo gën sëriñ bi mu ngi wax ne li kulli man yatlu yatluul kitaaba fi zaman al am na min darari min duril aadaay walfitam fitan li kulli man yatluul kitaaba fi zaman al am na min a durri min la aadaai wa wal fitan képp koo xam ne nii képp koo xam ne nii yaa ngi jàng téere boobu muy alxuraan ci jamono joo ko mën di jànge na nga xam ne suñ boroom ma defal na la defal na la gala garante ci lu lay lor mu jóge ci noon bi mbaamoog mu doon ay fitna yoo xam ne dana war a dan laa war a euh, gàllankoor wax na ne raxmatu kullin bi kitaabil xakim sala alayhi bi salaamil karim yërmaande képp ku mën a doon mu ngi ci téere boobu moo xam xam nga ko moo xam xamoo ko waaye sëriñ bi wax na ne sa yërmaande mi ngi foofu wax ne ajrul lasi yatlul kitaaba yan mu wasiituhu dunya wa uxra yas mu ki nga xam ne nii dafay jàng téere boobu muy alquran day dolleku rek day yokk rek waaye itam martabaam itam àdduna ak alaaxira day gën a kawe alhamdulilah kon téere boobu nga xam ne ni moom lañu suñ boroom jagleel ci weeru koor ak alxuraan rek yàlla wax na yonent wax na ne yàlla bu demee bay àtte jaam yi kenn ku ne mu àtte la xool ci say xool say jëf ba yàlla dogal nga war a jëm ca safaan koor day ñëw taxaw taxawaayu ku lay ràmm bu fekkee ne daa nga ko toppatoo daa nga woor ne diw day daana woor daanaa ko tee lekk bëccëg gi ak naan ak lépp lu mu bëgg rekk daanaa ko tee tee def ci bëccëg gi koor dama bëgg nga tin ma ci moom ni ki noonu alxuraan taxawaay boobu lay taxaw danan àtteb jaam ba bëgg ko yóbbu ci safaan sa mu taxaw ne sama boroom mu mu wuyu mu ne ko diw mii day daanaa ko tey nelaw guddi xam ne lépp daa daan jàng alxuraan lu baree bare dama bëgg nga tin ma ci bu ko defee ñoom ñaar ñooñu suñ boroom def tawfeex ci ñu taxawu la ba nga am yërmande sunu boroom alxuraanu karim ñu jële ci xadiis an abi hurayra radiallahu taala anhu annahu qaal samitu rasulallaahi salallahu alayhi wa sallam yaqul man kaana yarju liqaa allaahi fal yukrim ahlal qur'an qiila yaa rasulallah hal lillaahi azza wa jalla ahl qaala naam qiila man hum yaa rasulallah qaala ahlullaahi fi dunya allazina yaqra'uuna alqur'ana alaa man akramahum faqad akramahullah wa ahtaahu aljanna wa man ahaanahum faqad ahaanahullah wa adxalahu nnaar yaa abaa hurayra maa inda allaahi ahadun akram min xaamili alqur'an alaa wa inna xaamila alqur'an indallaahi akramu min kulli ahadin xadis bi wax ni xadis bi wax ni yàlla kan an yonent bi wax na ni ku bëgg a dajeeg sa boroom ëllëg te daje ba neex na nga teral ñoñ alxuraan taaba yi wax ni waaw yonent bi dañ lay laaj ñan ñooy ñoñ sunu boroom mu ne ko mu ne leen waaw ñi nga xam ne nii ñooy ñoñ sunu boroom dey mooy ñi nga xam ne nii ci àdduna ñi nga xam ne nii dañuy jàng alxuraan na nga xam ne it képp koo xam ne teral nga leen yàlla dana la teral te dana la joxit àjjana ndax moo ko moom képp koo xam ne doyadal nga leen yàlla dana la doyadal te dana la dugal ca safaan mu wax ne yàlla de amul ku ko gën a ku ko gën a tedd ku ko gën ku gën a tedd ci kaw suuf ci moom ku toll ni ki nga xam ne ni mooy yor alxuraan moo def alxuraan ci dënnam ki nga xam ne nii day dafa yor alxuraan fa sunu boroom moo gën a tedd kum mën a doon bu mu yàgg mu ne xanaa kay ba mu des ñi nga xam ne ñooy anbiyaaw yi kon koor dafa am solo lool waaye alxuraan bi ñu tànn wàcce ko ci weer wi waaye ci guddig laylatu xadar dafa am solo lool bokk na ci ngëneel yi xam-xam xam-xam ci koor da gis ne day gën a yaatu day gën a yokk nit ñi dañuy gën a yaatal seeni àlluwa barab yi nga xam ne ni dañ fay jaamoo yàlla da ngay gis ñu di fa tëral ay ay njàngale ay xam-xam nit ñi dafa daje di ko déglu ñeen ñi dañuy jël seenu àll wa gën koo yaatal gën koo jàngi ñeen ñi dañuy dem def dañuy dem ci barab yi nga xam ne dañ fay waxtaane diine di ko di fekke ji waxtaan yi ñeen ñi dañuy gis dañuy dem ba tëral ay waxtaan yoo xam ne nii yu bari lay doon ci barab yu wute nit noonu da gis jumtuwaayu xarale yi dañuy sëgg ci li nga xam ne nii mooy diine ci lu baree baree bari ci weeru koor kon koor day dimbale ci xam-xam man araada dunya fa alayhi bil ilm wan araada al fa alayhi bil ilm wan araada wan baynahuma fa alayhi bil ilm ku bëgg àdduna sàkku xam-xam ku bëgg ëllëg itam àllaaxira na nga ko sàkk ji xam-xam ku bëgg boole ñaar yépp it sàkku jël xam-xam rek koor it bokk ca ci ya mooy wër-gu-yaram danay woyafal yaramu jaam bi jafe-jafe yi mu doon am nga xam ne nii bu jëfandikoo aw ñam daana ko am yooyu yépp day wàññeeku ci moom day noppal li nga xam ne nii mooy liggéey bi biiram di war a liggéey ñam yi da ko ci dimbale noppal ko ndax lii waruwaay yi sax dañuy dem bu ay jamono ñu xoolaat leen xoolaat machine yi moo tax dafa baax lool ci wër gu yaramu doomu aadama ci biir koor ak yeneen waxi yonent bi salaa muy addis yi ñi nga xam ne ñooy faj dem nan ba gis ne maanaam lu dara ëpp ko solo ba ci waxam ji mu wax ni xaw qawmun laa nakulu na najua ñun ñi ay nit lan ñoo xam ne nii du nu lekk lu dul danoo xiif maanaam duñ def buñ jot ñam rek lekk heure heure yu nu xiifee la lekk buñ bu suuree daal di bàyyi ñiy faj ci àdduna bi gën cee kawe ci paj nee nañu ba ba ñuy faj bantaam leen xam ak paj ba léegi amuñu ndénkaane lu gën a kawe ndénkaaneel yonent bi bi mu wax ci waxam jooju ndax dem nañ ba ñoom dañuy dañuy digal nit ñi ñuy ñuy am waxtu yu nga xam ne duñ ko lekk ak waxtu yu ñuy lekk moom li ñuy tuddee régime te loolu ñoom bokk na ci li nga xam ne nii seen ngànnaay la ñoom pajkat yi te gis nga yonent bi salaasam ba mu ko waxee yàgg na lool ci kaw loolu lan ne kii kat kon am na ku ne ci ginnaawam am na koo xam ne nii kat moo ko jox moo ko yónni ci jaam yi ngir mu xett li leen kon wër-gu-yaram koor ak wër-gu-yaram day defar yaramu doomu aadama da koy faj comme ni ni mu ko waxee ci àddisam bi moom yonent bi salaam suumu tasixu woor leen bu ngeen wooree dangeen wër loolu te loolu muy lu wër wax na mu jun na koor pakk la mën naa doon ci sa wër-gu-yaram mën naa doon ci sa bakkan waaye mën naa doon sa digganteeg safaan sa bu ne na moom pakk la boo xam ne nii mën na laa fegal tawat yoo xam ne war naa mën a ne ci yow mën naa fegal sa bakkanit ci loo xam ne nii mën na koo wëlbati yóbbu ko ci safaan waaye tam mën na laa mën naa dugg diggante ak safaan sa koor ak ngëneel yi bokk ca ngëneel ya li mu gën li bi ci gën nag mooy ak ragal yàlla danay tàggat jaam bi ci ak ragal yàlla ba ci xale yi xam-xam bi nga xam ne nii mooy xool jikkoy doomu aadama ak di saytu ay soppekoom dañuy wax ni ñaari xale yi nga xam ne nii ñu ngi sa kër nga leen di jàngal koor ñu xëy nga yee leen xëdd ne leen xëdd leen ñu xëdd ñu dem ba bët sët bi nuy laata yegg dix kenn ki daal di ndékki keneen ki dem na ba ba naaj wi tàng mbaa dem na ba digg bëccëg mbaa lu ko romb mu daldi di door a dog nga di ko bàyyi nga ci bàyyi xel kooku toujours boo seetloo mooy gën a sori ci koor gi boo toppee seenub dund ki nga xam ne nii moo doon gën a sori mooy ëpp muñ te mooy ëpp jom loolu ñu baree bari bari buñ seetloo bu ñu defee seeni seeni njàngat ci seeni xale dañuy gis ne loolu ñu wax lu wër la koor dana dimbale jaam bi ci ak ragal yàlla ndax ragal yàlla mooy lépp loo bëgg rek jaare ko ci ak ragal yàlla boo ko defee danga nga ko am jafe-jafe yu bare yoo xam ne dañ koy am la koy waral lu bare bare mooy ñàkka wóolu waa ragal ki nga xam ne mooy yàlla rek sëriñ baa ngi wax ne waalam bi anna bi anna al fawza laa yunaalu illaa bi taqwa ala ma qaalu na nga xam ni ndam dey dee ko mën a amee ci leneen lu dut ak ragal yàlla loolu la boroom xam-xam yi wax wax ne isit tuqaa miftaahu kullu xayrin waalam mixlaaqu kullu dayrin na nga xam ne ak ragal yàlla de caabi la joo xam ne nii day tëj waaye day tijji day ubbi mooy caabi joo xam ne nii bépp yiw boo bëgg rekk moo koy ubbi waaye it mooy caabi joo xam ne nii lépp loo xam ne nii ab lor la mbaa loo xam ne dalay mën indil fitna moom moo koy tëj kon bu fekkee ngànnaayoo nga ko ngànnaayoo nga ngànnaay lu mat ngànnaay ba tey wax na ne bi ann xayra ma biil abdu stagal fi muddati xayaatihi taqwa samat na nga xam ni li gën ci li nit kiy soxlawoo ci diirub dundam ci diirub dundam li nit ki soxla la ca gën la ca gën a am solo mooy ragal yàlla kon gis na ne moom nit ki warta soxlawoo leneen lu dul ak ragal yàlla ci dundam ndax lu baax loo bëgg rekk foofu nga foofu nga koy làmb ji foofu nga koy jote ci ragal yàlla koor da ciy def ndimbal da ciy dimbale jaam bi bu baax a baax a baax bokk na ci itam li nga xam ne koor dana ko dimbalee jaam bi mooy dana tawfeex dana def tawfeex ci ñoom ba muy sàmm boppam di sàmm bakkanam bi nga xam ne nii seytaane mooy cër bi nga xam ne moom la seytaane am muy ndimbal ci moo muy ku koy dimbale ci doomu aadama muy bakkan dana tax nit ki di sàmm bakkanam bëgg a lekk bëgg a naan nekk foo xam ne kenn néew fa yow dong nga fi nekk ci néeg yow dong ak sunu boroom nga bàyyi xel ne lii li fi nekk kat naa ko bàyyi ngir si yàlla sunu boroom doo ko laal sam xel du ca dem ba dog jot nga xam ne loolu nattukaay la ci ja ci ragal yàlla ak jaam bi kon koor nattuwaay la ci jaam bi muy nattu boppam ci ak ragal yàlla ak yeneen yu mu bëgg a def mel ni wax wax safaan boo demee sax ci weeru koor nga bëgg a wax lu safaan nga nga danga koy dangay bàyyi sam xel du day day maanaam day dàq loolu boo bëggee defi caaxaan sam xel dàq lool boo bëggee teg sa tànk ci foo xam ne safaan la sam xel day dàq lool dëglu bi ngay sàmm say nopp ci li nga war a lan nga war a dëglu say bët nga di ko gëmm ci lu dut loo loo di ko gëmm ci loo xam ne nii safaan la doo ci bëgg doo ci bëgg a teg sa bët nga xam ne kon yow yaa ngi sàmmati sa bopp di sàmm sa cër di sàmm sa bakkan ci weer nga xam ne kon dara tollu ni weer wi kon dara tollul ñi li nga xam ne nii mooy koor bu koy defee nag saa yoo wooree ba weer wi ba weer wi weeru koor ñu ne la jeex na li la sa borom tere woon danga cee war a wéy ba mu des li mu teggi ci weer wi muy lekk ak naan da koy teggi la ca des danga cee war a wéy ñu taxawandi foofu di wax ne ñu ngi ñaan suñu boroom mu nangul ñu ko te laqal ñu ko fa yàq yeggut defal ñu tawfeex te boole ñoo ak ngërëmam wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmani rahim alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladina yuminuna الذين يؤمنون